Uh... bikum xam na beneen soxna bu faatuwaat ñàkk bakkanam ginnaaw bu mu doon wasin ca hôpital bu Louga l'observateur moo ñu ko xamal Penda Sall la tuddoon xamoon ñaar fukki at fa doon wasin xam doom te loolu yëpp dara waralut ko lu may geraw ba sage-femme ya nekk ca hôpital ba di xamal a ah, fa ñoo wax na liggéeyu léegi kuy xam doom fa lay seetaan rek càggante ñàkkal la fayda ba nga mujj dee rek ci pertement réew mi yéen a kaay dëggal ko ne waa kër docteur ya ñaari fan la ñu yokkaat ci seen geraw bi moo taxit Penda Sall député bokk ci benn bokk yaakaar ne lu ji njaaga saas-femme yi ñooy njaag ñoom ñëpp nag ñoom la le quotidien yi ne kaay na jafe-jafe yi am ci wér-gu-yaram gi fay gën a yokk soxna yaa ngi dee ci hôpital yi waa kër docteur ñoom it di continuer seen geraw mbootaay gi taxaw aji feebar ji nekk ci dansé ña ngay sàkk yoon def liggéeyam leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy parti politique yi fa ñoo nar a sonn de ndax benn at fañ ci xamal ñaari campagne élection locale yi weesu na ak bii di ñëw di législative yi ba tax la Soleil yéene kaay ne man kay fan la ñuy jëlee xaalis loolu laay laaj ndax campagne fa métti de falaat xaalis bu bari source a yéen a kaay na ko waa yeewi askan wi ñoom Ousmane Sonko fañ doon amal assemblée générale ngir waxtaan ak waa wàllu Sénégal enquête yéen a kaay dëggal xibaar bi ne lëkkaloo diggante wàllu Sénégal ak yeewi askan wi gaa ya ngi koy dox ci suuf de faa xamul nag dana sottem du sotti la sotti wut nag mooy investiture tabbu ak tànn seen mbër yi leen war a teewal ci assemblée nationale ñoom waa yeewi askan wi fañ koo tàmbali woon waaye fañ ko mujj dakkal critique yéen a kaay ne yeewi xam nga lan mooy seen jafe fi mu toll nii coalition bi fa gën a màgg gën a xam doole yi du yomb de nay leer la leer alintin bi fi jiite woon rado ba mu wax ko tey ci wal fajiri yéen e kaay mooy ne pétrole bi am Sénégal ak gaz bi fer beeg zircon be yeneen yi ni mel moo tax ñu jiite réew mi bëgg amal ñetteelu mandat xam nga pétrole bi seen ay la feeñee waaye fañoo ñoo nar a dem te pétrole bi génn gut gaa yi nag bëgguñ loolu te ñetteelu mandat boo xamante ne méngawut ak yoon xellente woon Sénégal am ay attekat yoo xam ne fa ñuy moom seen bopp ba pare am ak njàmbaar fit ba taxaw ne lii du fi amee ba tey alintin mooy wax fukki dëggam ak juróom-ñeent ca wal fajiri yéen e kaay nee na Sénégal am ab déggoo ci wàllu politique ne ñetteelu mandat waru fee xam loolu moom ku say bët baax da ko gis li mu gis ba wax ñu ko moom la were journal mooy ay journaliste Sénégal yoo xam ne fi mu toll nii fa ñëw sóobu ci làng ak politique gi lépp ngir bëgg a am domba tànk xam nañu ko ci jot a xam xam nañu ko ci xamoon ñàkk ko xam nañuy wuti l'évidence yéene kaay jox kàddu Pape Simaxa bu nay leer ma ngay dugg ak attaqué sëriñ bu maire bu Kaolack yow seetal Pape Simaxa nee na sëriñ a bàyyi jaabante défilé gi mu nekkee ci plateau télé yi tey télé bële yaa ma télé sax daw raw fa war a ci jafe-jafe askanu Kaolack li ko moo gën ñu ne déetawaay askanu boulevard liberté ñoom ña ngay ñaxtu ne tabaxu ka ñuy wax laxaat baabu na fa jógee fa ñoo fas yéene sax amal ñaxtu baare oto yi dara du jàll ajjuma bi di ñëw ba tey l'évidence yéene kaay di ñu xamal ne Ousmane Noël Dieng moom ma ngay sàkku ci président Macky Sall mu fal Diène Farba Sarr ministre ndax xelloo ko te yàgg naa taxaw Macky te daan moom la amal ak mouvement am ba ca geneen wàll ga nag moom Ousmane Noël Dieng ma ngay artu Serigne Boub na ko Kaolack ak lay xool te fañ lay muñal feeg benn at li ñu xaar ci yow ci suqali Kaolack mu xam su xamul nag rek ñoo ngi sa kaw de ndax moom nee na suqali Kaolack rek ko ko ñor li ñor armée bu Sénégal mooy fexe ba teg loxo Salif Sadio ak i nitam ca Casamance libération na moo tax ñu koy lukkat ba léegi de l'observateur moom di ñu xamal na Sénégal ko fa ñuy salfaañe lu leen neex def <laughs> yaw daal fa ngay gis kuñ filmer wane ko ci réseaux sociaux yi te filmer ga du yoon yéen a bi joxe ci misaal Adji Sarr lim def dem ba ci bureau doyen des juges moom Adji Sarr di filmer Ndeye Khady Ndiaye ak juge bi ba pare génne vidéo yi loolu fa garaaw te keneen su ko defoon ñu tëj ko kaso ñu ne déetawaay vidéo Cheikh Oumar Diagne ba ñu tëj ca kaso ga ñu filmer ko muy wax ñu wane ko loolu yëpp yoon fa ko tere waaye gars yi ñoom seen yoon lu leen neex rek def de la ñu def ñoom réewum France mooy tànnaat dañ Macron ngir mu ko xamal kon ndaw sam doon xëccoog waaye lañ seetlu nag mooy téeméer boo jël ñaar fukki ak ñett ci français yi dañoo toog bañ a dem wote ji libération moom di ñu xamal wàllu tappale gu ñu njort ne xam na ca poste finance yaw seetal fa xam ay nit ñu fa tijji compte ñu jël seen xaalis bi ngir jox ko ñeneen ñu fa ubbi compte bees doy na ci misaal Ousmane Diallo vingt mille francs le déposé ba pare encaissé onze millions ay waay ndaw Samba am na ñeenti nit nag ñu ca teg loxo ñeneen ñu ñu teg loxo mooy sénégalais ba ak malien ya yoroon lu jege ñaari milliards suñu xaalis ca frontière ba tey nag info a kaay fa xëy di ne waa xaalis bu bëri boobu yëpp fan la jëmoon fa ñu jëm ñoom askanu Matam ak Kanel boo moytuut mooy ne xiif fale na nar a rey lu jege juróom benn téeméeri junne doomu aadama fa ñoo xiif sonn buñ xañee duñu reer léeg-léeg sax duñu xañ duñu reer yéen a cabinet buñ ci wax du baax de am na nag xibaar yu génne ne état bu Sénégal tànn na njaboot ya fa gën a sonn ngir yónnee leen ñeen fukki millions ak ñeent séddale leen ko si du quotidien ne man faa xamut fexe ba réew mi ñu xam lekk gu doy fexe ba ndaw ñu xam xaw ma kañ lay xam Sénégal professeur Mamadou Moustapha Seck ma ngi cey joxe xalaatam ci yéene kaay bi docteur Macoumba Diouf jiite horticulture ma ngay xam ne ne pourtant Sénégal nag ñuy bay li ñu lekk kàddam yaa ci l'évidence yéen kaay turbine yéen kaay moom di ñu xamal ne juróom-ñaari doomu aadama faatu nañ ci accident ci fukki minute ca yoonu Tataguine ba xam na ñoo xam ne ndeysaan ay mbokk lañ léesi ko yéen a kaay moom di ñu xamal ne ñaari xale yu góor ñoo doon xuloo xeex ndax xale bu jigéen benn xale bu góor ba sant ba daal di rey Assane Gueye yëf yaa nga amee ca jidda caaroy kaw ka karay nag seen kër fa xam ñu fa dem tojate kër ga rajaxe ko jël fa ñetti écran plat xaalis gaañ fa benn policier ak benn xale boo xam ne fañ ko mujj yóbbu hôpital wàllu fiiraangeeg bëgg lu neex bu jigéen ngeen di rayante ah Sénégal lu nekk nga fiy gis l'observateur ne xaaral faa leen ci yokkal laneen lu garaaw juróomi xale yu góor yu am fukki at juróom benn fa jàpp xale bu jigéen bu am fukki at juróom di ko wiole doon ko awantoo ku pare jox sa morom ba xale bu jigéen ba ma nga ca diggante dund ak dee urgence hôpital lañ ko yóbbu yëf yaa nga amee ca Bakel mu ngóog nag man defaa jommi ci réew mi